dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay na ku nekk ubbi ñu dem seet yéenekaay bii di Sud Quotidien kaddu yi nga xam ne nag Abdoulaye Wade yëkkati na ko fi te xamal ne jongante palu njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dëlmal am ci Sénégal waaw maanaam waaw ndaxte ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci ne ànd nañ xam ne Abdoulaye na ko professeur Issa Sall moom nag jàpp ne kaddu yooyu daanaka du kaddu yi dara waxi picc la nekkul loo xam ne jar naa jox benn fula ndaxte jongante njiitu réew yi nga xam moom la ñu dëlmal lenn loo xam ne war naa mën a tax jongante yooyu du am yaanamar di ñu xamal ne jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal képp koo xam ne daal taxaw nga naan jongante yooyu doo am daanaka yaag Macky Sall yéen a ànd bu dee nag ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ñoom sax wax ji joxuñu ko benn fulla maanaam dañu ko doyadal wax ji yàbbiwuñu ca bu dee Aly Ngouille Ndiaye moom nag dafa jàppee kàddu yooyu kàddu yu doye di waxi picc la ko jàppee bu ñu sukkandikoo nag ci yéenekaay bi nga xam ne moo di Les Échos di ñu xamal ni kay Abdoulaye Wade xeexam boobee daanaka moom dong dana ci wéet ndax mouvement ndax mouvement FNR ànduñ ci mbébatu Abdoulaye Wade boobee nga xam ne moom la bëgg muy jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal ñu daal di lànk ay élection ba bañ am ci réewum Sénégal vox populi di nga xamal ne ñi nga xam ne sax ñoo nekkee ci kujje Sénégal ànduñ ci kàddu yooyu waaw ñeneen ñu ànd ak kenn waaw les échos yéen kaay di ñu xamal kay jamono ji doole ma ngay gën di yokk di Mamadou Diop Decroix Pape nga xam ne moo di Mamadou Lamine Diallo fekk nañ nekk ci ginnaawam ba jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal réewum Sénégal ñu daal di koy jébbal ki nga xam ne nag mooy Idrissa Seck moom ndaamal Kajoor laas yéen ne ko waxal wax ji du Idrissa Seck du ñooñee kay dong ñoo ko jàppale ndax ki nga xam ne moo di Petit Gueye ak Elentine jamono ngi ci ginnaaw Idrissa Seck Bougane Gueye Dany léegi na gëmatut boppam gëmu gëm moo di Idrissa Seck muy ndaamal Kajoor waaw Bougane Gueye Kane jamono ji koy fekk na ki nga xam ne moom la doon amal 24 heures ne ko maa lay dikkal kay ci juróomi candidat yi ku nekk ak fam demoon Ousmane Sonko mi ngi woon Bawol jaar na ndindi ak fi nga xam ne moo di daaru xafoor amal fa mitin bu rëy sàkku ñaan ci kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekkee foofee bu dee nag professeur Issa Sall nekkoon ca Kaolack Madické Niang nekkoon ca ne askan ji koy sax am na dëkk yoo xam ne jamono ji li ñuy jànkontal jéggi na Dakar Times la ko ñor mooy candidat yi nga xam ne moo gën a fës ci way xarale yi mu ñuy xamale candidat yooyu bokk na ci ki xam ne nag moo di Macky Sall ak Idrissa Seck ak Ousmane Sonko waaw foofee daanaka gën nañ faa fës doole ji yaatu lañu fa am doole dëgg te yaatal doolam yéenekaay bi di source a ci xarit mag Mor Mbaye Cissé di ñu xam ne kokkay kay napp soxna Mame Khary ngir ñu jàppale njiitu réew mi Alioune Diagne ak ñi mu àndal ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement Okas jàppoo waaw ñoom nag jamono ji soxna Mame Khary ngir ñu ànd ak moom liggéey Khadim ak ñi mu àndal ñoom nag jamono ji fekk moo di soxna Mame Khary nañu fekkante yéenekaay bii di sunu làmb mu ñu di kalaat ci lépp loo xam ne jëm na ci combat bi war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo combat boobe daanaka taxaw na te balaa yàgg ñaari mbër yi dinañu sëgg bëre